Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi di leen gërëm leen sant di leen programme de Salam Vision. di ndokkeel yëpp si weer bi sell di weeru koor di weeru jërëmande euh, di weer bi xam ne yàlla mu ko wàcce ñu mën si toog di jëgalante di baalu tax loolu lu am solo la euh, si dëkku biir yëpp adduna bi yëpp ñaan yàlla yàlla yàlla jàmm jëlee feer bi xam nga mooy coronavirus bi fi indee ay jeexi jaaxa ay jafe-jafe si adduna bi di gërëm te koo xam ne daal ñuy suivre un peu te suñu gëstu tey bi nag eh, ñu ngi ko jëmale si ñun accident yu bari si weeru koor bi di weer bu sell di woowaat encore une fois plus suñu mbokku chauffeur ñu nekk si tali bi di tawal di yab doomu aadama yi yóbbu guddeeg ba cëkk eh, gis ngeen weer bi ñu nekk mois d'avril bi diggante semaine yi ñi faatu bari na xooleen teew fële ca Fatick juróom benn doole yoo xam ne ñàkk seen bakkan ak ñeent fukk ak juróom accident bu métti métti métti euh, bare na ministre des transports Mansour ak les responsables yi nga xam ne ñoo nànk transport bi si biir réew mi dem nañu ba si bërëb yi di ñaaw accident yu métti yi si weeru koor bii ñu xam weeru sell la ma ne nañ dawal yërëmande euh, Sénégal accident yi bare nañu tali bi ñuy faat bare na trop xooleen diggante deux mille dix huit ba deux mille vingt ba deux mille bi ñu dugg li faat seen maanaam bare na euh, tali bi mun nañu wax nag xol yi ñoo xat tali bi xatu mais xol yi ñoo xat dañu war di jéggalante di bàyyi ci ak si weeru koor bi di weer bu set nit ñi bu ñu dawal nañu ànd ak dal ànd ak yar ànd ak tëddi oto du jaayante maa dafa dawal du jaayante doole xel dal ak respecte sa réew ak fonk say kàddu ni ngay dawalee mais Sénégal ñu bari ñu dawalee dafa ñaaw teg ñu ko fenn moo tax nag euh, dañu waxoon nañ fi jëlee accident yi fii ba deux mille vingt cinq bala ñu fi jëlee nag dañu jikko yi wala comportement yenn chauffeur yi si tali bi lu waay neex def euh, lu la neex ngay dawale am na ñoo xam ni am na seen sago ñu dox am na ñoo xam ni sax yoruñu permis euh, jékki-jékki rek seen si kaw tali bi muy suñu mbokku transporteur camion yi euh, yenn clando yi ñépp lay wax képp koo xam ni respecté loolu code la route dañu daan teg ko sa kaw loolu mooy réew ma ne maslaa bi dafa bare di wax le ministre des transports kii di Mansour Faye les responsables des transports di woo nguur gi jël seen i matuwaay ñu aar askan bi ci tali bi euh, suñu mbokku policiers yi gendarmerie di leen woowaat ñu gën a góorgóorluwaat euh, yar nit ñi ci tali bi di leen gën di euh, conscientiser amoon na fi jamono yu passé ay campagne de sensibilisation dox bi biir gox goxaan yi mën a delluwaat chauffeur yi delluwaat askan bi que bi li muy faat bari na trop diggante euh, at yi wees naka la nga fiy jëlee yomb bu fekkee ne da ngay rawatu circulation bi mais nga wàññi euh, sa vitesse ak loolu yàkkamti yàkkamti yàkkamti euh, yaa ngi yëpp ay nit gis nga nit ñaa ngi dox si kaw tali li ñu leen neex la ñuy doxee. am ñoo xam ni respecté wuñu circulation jox la oto tey tey tey nga fàttali tey yàlla incha allah musa ma ne lañu xoolaat jikko yi xoolaat ni dawale te Sénégal euh, accident yi day gën di bare guddi ak bëccëg naka la ñuy def euh, di woowaat suñu mbokku kàllaat yi chauffeur yi njaga-njaay yi suñu mbokku clando yi ba si particulier yi accident yi mi ngi gën di jéggi muy faj dafa bari euh, weer bi sell bi weeru bi ma ne nañu jëggalante nañu muñ tali bi xatumlee xol yi ñoo xat euh, boo xoolee autoroute à péage bi la nga gis mala yi traversé nit day ànd ak ngandi vitesse wala mu wàññi vitesse am mën na ay gàllankoor moom la ñu faral di gis souvent euh, si yenn bërëb yi ak yenn diwaan yi chaque jour bés bu nekk yéen a ngi dégg kenn nit faatu na kenn nit gaañ la keroog maa ngi dégg yoonu Fatick bi benn waay boo xam ne dafa saaraan euh, frein yi moo dagg faat ay mala yu bare bare mu ni ay nag ay béy ay xar loolu dëgg du yoon tey ko fen loolu àq la euh, te yàlla bëggul kuy toj nañ jégalante yàlla rek tax mais circulation bi ñu gis ne actuellement di wat encore usage yi di wat les responsables des transports man ko ban toog encore yor seen i motuwaay que masla bi dafa bare accident yi dafa bare war nañ ko fi jëlee te weeru koor weeru weeru mën ngir yàlla nañu taw ndànk nañu ànd ak dal mais li ñu gis tali bi léeg-léeg gis nit euh, mani nit lokk nit euh, mënul dawal ñu jël jël jox ko permis def ma ne dañu war a jël suñu responsabilité surtout la police la gendarmerie leen gën a ñaaxaat ñu la sécurité routière ba si biir tali yii. Euh, gis ngeen ni yoonu Touba bi même chose yoonu Thiès barki dem rek am benn dëkk bu ñuy wax euh, barki dem rek amul ñetti fan jóoru doomu aadama yoo xam ni ak ay nit ñu gaañ ñu bari ñu gaañ yoo xam ñu bari yoo xam ne ñu gaañu peut être accident boobu métti na diggante semaine bi rek ñu la. ki nga xam nag comme mooy nguur gi ñu jël seen responsabilité encore une fois de plus woowaat aussi euh, suñu mbokk chauffeur yi nañu toog di diisoo nañu jégalante di waxtaan di def ay débat ba si gare routière yi ñuy euh, faral di waxtaan seen mbokku chauffeur ba si suñu mbokku mécanicien yi ñi nekk si tali bi ñu def si jéego yu am solo mais bu ñu ko defoo bàkkaar yi dañuy gën di rot bu dégg ba cët tey waroon gëstu tey ko si les séries d'accidents à travers la circulation routière encore une fois de plus euh, métti na métti lan la ñu war a def si weeru koor bi di weeru bu sell di weeru yërëmande dañu war a di joxante loxo bi wax suñu mbokk chauffeur yi nañu ànd ak dal te bàyyi fitna yi bàyyi euh, yenn Euh, coow li ñuy teg askan bi ci circulation bi xoolal tey ñoom bu ñu jékki dañuy jékki ne dañuy grève bu ñu grève dafay paralyser le système routier mais ñoom tamit war nañu euh, delloowaat boobu sa mboy mboy nga na naka di euh, wane li ñu naan dëggu dëggu dafa manqué si réew mi au niveau de la circulation routière loolu mooy Sénégal la ñu war a tax loolu dindi fi ñawte fi dindi xoli lëndëm yi loolu dafay euh, delloo ginnaaw dafay indi ay blocage au niveau de la circulation routière di woo le directeur général euh, des transports routiers le chef Oumar Gueye le ministre Mansour et tous ses collaborateurs jël seen i motuwaay trop c'est li ëpp turu askanu suñu gaal tey moo leen si gëstu bés jëmale ko sur la circulation routière damay ñëw si beneen euh, xibaar euh, loolu ñu ngi koy waajal fii waxoon naa keroog au niveau de Salam Vision jëmale ko sur la journée mondiale la liberté de la presse ñu ngi koy waajal fii le 3 euh, mai bi fête dédiée à tous les journalistes kuréel bi ñu taxawal fii tuddee alerte aux médias dans le média yi que bés bi ñu ñëpp ñu ko rendre hommage à Sidi Niass, le père fondateur du groupe Walfadjri Sénégal yeneen émission le 3 mai mooy spécial édition bi ñuy waajal fii Salam Vision invité euh, des responsables la presse ñu waxtaan si mbirum tasum xibaar fii ci réew ak Afrique ak li ko wër mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp boolotee gëstu bés bi jëmale ko si la circulation routière euh, yal na yàlla doon jàmm euh, nekk atum jàmm atum naataange. bañ a nekk atum fitna Sénégal dëkku jàmm la borom mi suur xëy ñëppay suur euh, ñaan yàlla rek yàlla delloowaat jàmm mi jërë ngeen jëf ba beneen